autorités du régime d'Ango, en commençant par le directeur général, les membres de la délégation conduite par l'infatigable Madame Bay, qui est très connue, je crois que dans cette zone, et pourquoi pas dans la commune tout entière. En effet, M. le Directeur, au nom de toute la population de la commune de Kermoussa, mais particulièrement les populations de la zone nord qui polarisent quelques 6 à 7 villages, nous vous remercions au fond du cœur pour les efforts que vous ne cessez de faire envers nos populations on les a énumérés tout de suite même, depuis l'existence de cette usine, vous ne cessez de nous apporter des contributions et d'aider ces populations dans tous les domaines, que ce soit, comme on l'a dit, domaine social et autres. Donc soyez remerciés au nom de toutes ces populations. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di gërëm di tàmbale wax ji di remercier chef de village yi nga xam ne ku teewul itam sa ndaw teew na fi ci li nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy lu am solo ndax man maa ngi fàttaliku su yàlla dogalee ñu réaliser CM bi dafay nekk troisième CM boo xam ne am na fii ci commune bi dafa am bis ma joge tali ba di jëm Ngomeen ma ñëw ba ci yoon yi ma dab ay xale yu jigéen kenn laa jëkk daf maa ngi koy bëgg a yóbbaale ci oto bi mais ragal na bëggul sax dugg ci oto bi il fan fallu ko ma avancé seen yeneen moroomam yi ñu xaw bari ñu soog a nangoo dugg ci oto bi fan la ñuy jóge c'était vers 18 heures ñu ngi jógee pour di ñibbi ñenn ñi ñexet ñenn ñi ngomeen ñenn ñi ndëy bis boobu laa am benn xalaat ci sama bopp ne en tout cas su fekkoon ne doole bi maye na ko bu ñu amee benn seem bu ñuy tabax zone nord bi lañ ko yindi loolu ñu gat bi at mi passé ñu ñëw fi fekk ni it commencé nañ waxtaan ak waa Dangote ba ñu waxee itam kenn ku ci nekk projet yi nga xam ne moom nga jëflante ak Dangote yaa seet fañ ko war a def soo demee pour bu ma juumul war nañ fa dem tey wàllu sante wàllu wér-gu-yaram lañ fay defi soo demee Morolan lu mel noonu jusqu'à jas ndax ñi mu impact yépp ni mu dugale loxoom fii lay dugale loxoom ca foofu mais nag ñun au niveau de Kër Moussa wax dëgg yàlla jàpp nañu ne ah naw yi kenn ëppale ci ndax loola bi mu amee ñun suñu xel li mu jëkk daj mooy zone nord bi nga xam ne moom la gën a impacté non seulement lu dul loolu aussi xale yi jafe-jafe yi ñuy am di jóg di jàng ji fii bépp ñu ne bon nañ ko indi fii bañ ko fi indee aussi amuñu ay jafe-jafe. ndax population bi nekk ci zone nord yépp ñoom ñoo d'accord ne nañ ko def fii chef de village yaa ngi nii toog ba mu amee itam terrain bii ñu nekk mu am koo xam ne ci dëkk bi la dëkk ci volonté boppam librement mu fab terrain bi maye ko joxe ko muy góor gi puy moor puy alaaji moor puy mu fab terrain bi joxe ko gratuitement laaju ci kenn benn gërëm kooku aussi bu ñu toogee fii tey jaadu nañu sant ko gërëm ko ndax li mu def lu am solo la ci loolu vraiment autorités yi Dangote aussi jàppaleñ ci loolu ba bi waxuma la pose première pierre mais dañu war a démarrer les travaux sànq effectivement directeur wax na dëgg xam naa dañ leen waroon teel a informer ndax cérémonie bi itam sax jàppewuñu ko woon sax cérémonie bu war a toll nii mais nag dafa am loo xam ne nit ki bu la koy defal danga ko war a wan ne li nga may defal yëg naa ko moo tax ma préféré woon aussi population bi yëpp génn ma ñaan directeur ne ko bu ma sañoon élèves yi nga xam ne au futur ñoom ñooy jàng fii ñu ñëw fii gis ne xam ne lii ñuy tabax fii yéen ñii fi nekk di jàng li ko tàmbalee CI ba CM2 yéen lañ koy tabaxal incha allahu à partir ren bu déwénee dootu leen amati suuf si ci seen bopp naan sama doom bu amee entrée sixième Pout lay jëm wala feneen lay jëm lu mel noonu nag ku la koy defal da ko war a weer ci biti ba ñépp a gis ko ndax nag gis nga teraanga bët te lii teraanga ëpp ko waaw teraanga ëpp ko bon ñi ñu ko defal war nañ leen war ne kat li ngeen ñu defal gis nañu ko loolu moo waral cérémonie bi ñu organiser ko nii donc euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm beneen bi ci topp ci ci laay terminer monsieur le directeur ñu di leen ñaan itam ngeen gën ñu accompagner yéen ñi nga xamante ne yéen a téye wàllu njàng mi ci gox bi pour que ñu gën a accompagner projet bi ndax su amee day leen gën a noppal ndax fii ñu toog suñu yéene mooy def ko benn bloc bloc boo xam ne dafay jël CM bi ak élémentaire beeg yépp ñu def ko benn bloc mën ko clôturer mu am sécurité pour que vraiment ku génn fii rek dugg fii ñeneen ñi aussi même chose ndox mi sorewu fi courant bi sorewu fi te yooyu yëpp prévoir nañ ko pour que mu war fi nekk parce que actuellement nécessité la ndax bu ñu waxee bloc d'hygiène yu fi nekk war nañu jàpp ne xel war na dem ci ne ndox daf fi war a am bu ñu waxee classe yi aussi ni ñu ko bëgg a war nañu jàpp ne courant daf fi war a am te yooyu yëpp yàlla dogal na agsi na ci dëkk bi chef de village ah bon nu sant yàlla lii ñu fi bëgg a def nag li tax ñu bëgg a ñëpp dugal ci seen loxo alal ju bari lañ fi def ñëpp wax nañu waaye tudduñu ko waaye man ma nga xam ne maa ko signé maa koy tudd cinquante million la ñu war a def fii pour tabax ñaari dërëm du cinquante million cinquante million juróom fukki millions la ñu war pour tabaxe ko CEM bi ba mu àgg yëkkati caabi yi teg ko ci suñu loxo loolu daf jaadu na ñëpp xam ko xam ne aussi suñu partenaires yi li taxoon ñuy gën a jàppante ak ñoom du suñu intérêt bopp monsieur Mbaye wax na ko léegi mooy intérêt population yi ndax ku ci ne xam na euh, début projet bi ni mu demee yéen ñëpp xam ngeen ko man ak yéen ñoo ko doon dundandoo waaye liñ ci doon jublu rek mooy que ëllëg firwi yi nga xam ne mooy joge ci Euh, euh, projet boobu bu taxawee population bi mun ci sentir seen bopp te xalaat naa ne lii ñu def tey bari na yi ñu def le mais lu ko ci ëpp solo amul waaw xari tabaski yi jaar na feek nag yees suukar seek bie màkk yeeg waaye lii am na solo waaw kon nag mën naa wax ne su fekkoonte ne tey lu ñu diggante woon la ak ñoom def nañu ba def lu ko ëpp kon ñu ngi leen di remercier bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di ñaan yàlla eh, liggéey bi entrepreneur bi nga xam ne moo ko yore mu ngi nii muy sëñ Adama Fall moom la yàlla dogal mu tegu ci loxoom àndoon naa fekk moom présenté leen ko ah, ngeen jàppale ko jàppale bi nag du caa génne dañuy naan da ngeen di ñëw yéen lay eh, wax ne defal leen ma lii defal déedéet mais ngeen surveiller liggéey bi ànd ceeg moom. lépp lu ko war a gàllankoor aussi ngeen jàpp ci ndax dëkku fi feneen lay jóge yu baree bari xëy na fii la koy mën a amee ci seen biir foofu laa tëral baatu jàppale bi ba nga xam ne suñu objectif bi nga xam ne moom lañuy ñuy naal que bu déwénee vraiment xale yi kenn bañ a am suuf si naan fële laay jàng mais gox bi yëpp fii la ñuy jàng ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, ñoo ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew di ko commencé ci bokk bi muy monsieur le maire El Hadji Momar Cissé di ko ziyaara di ko gërëm di nuyu délégation bi nga xam ne ñoo jóge Dangote ca madame Mbaye ak kilifa yu baax yi mu àndal nekk ci biir ginnaaw bu ñu leen nuyoo nag kàddu yi moom du gudd ndax li solo si ndaje mi xam naa ñi ci kanam ak ñi jëkk a ñëw dinañ ko wax ñen ñi am na luñ ci tudd man li nga xam ne nii moom wax rek mooy bu ma ginnaaw bu ma gërëmee monsieur le maire gërëm dangot wax leen euh, tuuti ci liggéey bi li nga xam ne nii la war a demee ndax euh, insha allah mi ngi war a nekk euh, juróom-benni salle de classe yoo xam ni dafay ànd ak bureau directeur ak secrétaire war na am ñaari bloc d'hygiène incha allahu euh, liggéey la boo xam ne nii répondre na ci wàllu sécurité ak wàllu espace yi ak aération yi yépp dina ko répondre incha allah euh, dina ci am loo xam ne nii sax mii nuñu ko gis ci salle de classe yi te mooy plafond incha allah prévoir nañ ko ci ak yi ci ajoo ya ca war a dem yépp kon nag damay tàllal loxo waa dëkk bi muy jeunesse bi di tàllal loxo mag ñi di tàllal loxo ndaw ñi di ñaan bu bis bu yàlla dogalee ñu ñëw ñu ànd jàppalante euh, ñu jàppalante euh, jàpp ñoom ñu jàppale ñu. ndax euh, comme ay gan lañu fi. dina am loo xam ne nii dinañu ko soxla ci ñoom. conseil sax ndimbal la. Mm-hmm. su ko defee lépp lu ci waay mën a def rek. nga jàppale ñu ko. Cette opération rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de, de Dangote Sénégal et euh, ce projet découle d'un cadre de concertation qu'on a mis en place avec les maires des communes de, Pout, de Kermoussa, mont et Dias. Et à la suite de ces concertations, donc le maire de Kermoussa a euh, donc proposé la construction de ce collège à qui est une nécessité euh, prioritaire pour euh, la commune. Le, le, budget qui a été dégagé est de 50 millions de francs CFA. Ousmane Baye directeur administratif et financier de Dangote Ciment Sénégal waaw loolu ñu ko def ci cadre RSE RSE mooy maanaam entreprise bi chaque année ça yu eu dina am loo xamante da ciy tekk ndaw population yu ko wër nga boo di nga seen te loolu ñu ngi ko def ci concertation concertation mooy maanaam waxtaan dañ def ak population yi xool ba xam ñoom lan lañ gën a soxla ba ñu waxtaanee ak ñoom ñu ne ñu fii di Ñaaxib am na école élémentaire waaye amul CM donc ça veut dire que xale yi dañuy dox plus de 7 à 8 kilomètres chaque jour pour dem jàng ji ba Pout donc bu ñu leen defalee lu mel nii CM ci biir dëkk bi loolu dina leen arrangé ndax xale yi dootuñu def ci déplacement ba pour dem di jàng ji te eh, RSE bi daanaka tàmbale nañ ko bu yàgg ci ay ndimbal yoo xamante ne yóbbu ay billet màkk lañ doon joxe leen jox ay suukar ak leen dimbali si tabaski ak korite yi mais maintenant léegi ñu ngi si beneen phase phase mooy dimbali leen maanaam ci wàllu wéngu yaram comme lu ñu war a def puut si maternité bi fii ci jàngale bi maanaam CM ci jàppale état bi ndaxte état mënul def lépp. moo tax entreprise bi jël ci am def pour la. mi ngi 50 millions moom budget dégagé n'est-ce pas pour donc gis ngeen entrepreneur bi affaire cérémonie bi suba bu salles de classe 6 six salles de classe euh, am bureau directeur ak euh, bloc de bloc de d'hygiène pour xalé yi fu ñu mëna Monsieur Patefal, directeur de l'école élémentaire de Nyarib mais aussi président du collectif des directeurs d'école de Pout et environ. On ne le dira jamais assez. Euh, c'est un grand jour pour nous parce que l'érection d'un CM dans une zone, euh, je dirais même enclavée, de la zone nord de Kermoussa, constitue à coup sûr un grand événement pour nous les enseignants, surtout pour les élèves qui devaient poursuivre leurs études au niveau secondaire dans les villages environnants, dans les communes environnantes ou même à travers la région parce que n'ayant pas une telle infrastructure. Euh, donc euh, nous ne pouvons que nous féliciter et dire aux populations que c'est l'occasion d'inscrire massivement leurs enfants dans les écoles élémentaires des environs parce que désormais, ils ont une infrastructure pour pouvoir les accueillir pour leur études secondaire. En dehors de l'école élémentaire de Nyarip, nous avons l'école élémentaire de Ngomen 2, l'école élémentaire de Ndei, l'école élémentaire de Senwolof et qui polarise d'autres villages euh, comme Kuryusu, comme Demen, comme Tchamen, des villages comme Darou, Kermanyang, Koloban, Kajel. Donc tous ces villages environnants, donc, leurs enfants font leurs études dans ces écoles-là. waaw njeexital gi weesuwul di leen jàppale pour ñu mën continuer seeni études parce que il faut le dire nous bari ci ñom daan nañu décourager yenn parents yi du bëggoon inscrire seen doom ndax bu ñu ni bu réussiré daanaka du am fu ñu ko yóbbu ndax Pout la jëm à euh, sept kilomètres ou ngay wër euh, njaatige bu ko fa mën a yor wala sax nga di ko transférer ailleurs dans la région kon lu mel nii bu ñu ko amee ci seen wet wax dëgg yàlla dina leen dimbali bu baax dimbali ñu ñun jàngalekat yi euh, pour que ñu gën a mën a am courage vraiment di di di jàngal xale yi Eh, tayit vraiment di len inscrire massivement. collège bi ñaata dégg wala ñaata école élémentaire la polarisé. Eh, collège bi polarisé na boudé école ñeenti école école élémentaire bu ñaxit école élémentaire bu ndey école élémentaire bu ngomène 2 ak école élémentaire bu seun wolof mais école yoyep ben bu ci nek dafa polarisé wat yanen dëkk ku melni koloban keur kër mañang kër yuusu daaru ndemeen eh, caameen etc. donc ñooñu ñëpp tay ji li day tax ñu gis ci seen bopp ba ñu def ay kilomètres wax dëgg Yalla seeni doom di sonn ba sax di décourager di mujj di abandonner école. La référence du district sanitaire de Pout. Le district sanitaire de Poudre euh, couvre une superficie de 400 km2 et la population du district, c'est 138 000 poussières d'habitants. Donc nous sommes au plus de 135 000 habitants pour le district santé de Pout. comme je l'ai dit tantôt, le centre de référence du district, c'est le centre de santé de Pout, qui est d'ailleurs le seul centre de santé du district. quelles sont les zones polarisées Les zones polarisées sont les quatre communes, notamment la commune de Kermousse, la commune de Diender, la commune de Kayar et la commune de Pout quels sont les principaux motifs de consultation bon, Les motifs de consultation qu'on porte au Sénégal, pour, surtout pour la période, c'est le syndrome infectieux. En plus, c'est les malades chroniques, naturellement l'hypertension artérielle et le, diabète, qui euh, occupent la plus grande partie des consultations pour les personnes âgées le plus souvent. Mais pour la période où nous avons le plus euh, le syndrome infectieux naturellement avec la grippe et quelques cas de paludisme qui surviennent le plus souvent pendant cette période. Comment se présente la santé Bon, pour comme je l'ai dit, il y a quelques années de cela, on a enregistré quelques rares de ces maternelles. Et comme euh, je l'ai dit tantôt, le district euh, comporte 10 euh, postes de santé, un centre de santé. Donc sur le plan géographique, on peut dire qu'il y a une bonne couverture géographique et sur le plan également. Donc il n'y a pas une localité de 5, distante de plus de 5 km à, un une de santé où euh, il y a une sage-femme et une infirmière. Donc on peut dire qu'il y a une bonne sécurité géographique. Pour l'accessibilité financière également, avec les mutuelles de santé et la couverture maladie universelle, je pense qu'il y a une bonne amélioration de la couverture euh, de l'accessibilité financière. Ce qui fait que par rapport à la santé de la reproduction, nous même, nous avons de bons indicateurs euh, liés à la planification familiale, aux accouchements dans les structures, parce que c'est exceptionnellement maintenant qu'on trouve les accouchements à domicile. La plupart des accouchements se, se passent à domicile. Et pour cette année-ci, depuis le début de l'année, nous n'avons enregistré qu'un seul décès maternel ce qui est ce qui est un bon indicateur. En tout cas, ça s'est beaucoup amélioré par rapport aux années passées où c'était entre 2 et 3 sur les 5 dernières années. Euh, de 2013 à 2018. du point de vue infrastructure et personnel qualifié bon, Pour le personnel qualifié, donc, euh, comme je le dis, actuellement, pour tous les ports de santé, tous les ports de santé sont doublés. Il y a au moins un infirmier et une sage-femme. Il y en a même des ports de santé où on a deux infirmiers et parfois deux sages-femmes. Pour le centre également, donc, il y on a suffisamment de personnel, mais euh, la plupart du personnel, à part l'État, c'est le comité de santé qui recrute pour le compte des, populations. Donc c'est que pour le moment, quand même, on peut dire que le personnel qualifié est, accessible, et suffisant dans, la, dans, de le centre. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une maternité financée par un partenaire de la zone. Quelle appréciation avez-vous de cette infrastructure qui vient renforcer le dispositif existant Donc, naturellement, nous réussissons de cette situation. Donc, comme on le dit, euh, le centre a beaucoup d'industries et ça, ça augmente de plus en plus. Et le fait de voir ces industries-là dans le cadre de la RSE apporter leur pierre, leur contribution à la santé des populations, c'est une situation que nous ne pouvons que euh, magnifier. Et comme je l'ai dit, c'est ça, c'est ça ce qui est normal. Donc, mais c'est rare les, industries, ou en tout cas les entreprises qui comprennent cette, euh, euh, obligation, en tout cas, d'assister les populations dans le cadre de la santé, dans le domaine de la santé, ou dans le domaine de l'éducation, en tout cas dans tous les domaines sociaux. Et en tout cas, ce n'est pas la première fois. Dangot nous a appuyé dans des projets que le comité avait financé, donc à hauteur, c'est une contribution. Donc maintenant, c'est la première fois que Dangote euh, vient financer un projet entièrement avec euh, l'appui de la, mairie. Donc comme je l'ai dit, c'est Dangote a financé la mairie et c'est la mairie qui a jugé utile de pouvoir orienter euh, ce financement à la santé de la population, notamment à une construction d'une maternité euh, au niveau du centre de santé donc comme je l'ai dit, l'environnement est environnement environnement de travail Il dafa am solo motivation personnelle dafa am solo également ci population pour ñu de santé donc comme je l'ai dit personnel est un mais il que personnel qualifié pour inster population pour ñuy pour également motiver agents pour santé donc dangor fofu la ñëw jàppale si li fi nekkon daw maire bi def na ci dara conseil départemental def na ci dara dangor ñëw tey ji amélioré li nga xamni da fay nekk projet bi nga xamni da koy financer à 100 euh, jox ko maire bi maire ñëw financer ko ci centre de santé de de Pout bi en tout cas ñun ni ñi japp moy que ni dana yok fréquentation fréquentation baax na naam waaye jàpp na nit ñi daañu gën a sawar pour ñëw parce que li ñuy wan li tax ñun ñi dem privé la plupart temps dañuy wax naan suñu environnement travail moo xaw doy waar donc loolu bu ñëwee day tax environnement travail nekk li nga xam day nekk da koy relever de telle façon nga xam ni nit ñi bu ñu ñëwee daañu nekk vraiment mën a nekk à l'aise ci structure bi comme agent yi heureusement daañu mën a travailler dans de meilleures conditions donc je pense noonu lañu jàppe que ni contribution Dangote bi day am solo ci euh, am pour l'amélioration indicateurs yi yi nga xam ne moom la ñu suñu tutelle bi fixé. coût bi ñaata lay toll. Hmm? coût euh, construction. coût construction bi c'est un peu plus de 40 millions c'est un peu moins de 50 millions donc. Safa Sar maire de la commune de Pout. waaw ah, li ñuy wax rek moy dañuy sant bu baax a baax waa Dangote mi nga xamni tay jox nañu lu mat 40 millions Bo xam biñu ko joxee conseil municipal bi ñom ñoko voté pour def ko maternité muy lo xamni lu am solo la si santé jigéen ñi parce que gis ngeen centre de santé bi centre de santé la c'est vrai mais centre de santé bu manqué yu bare bare bare la maternité bi bo dee sét xeyna ñaar ba ñett salle mo fi amone c'est une population rien que nous pouvons faire, une population de 40 000 habitants waxuma waxuma waxuma ci district bi donc des yàlla qui ñu jox ñu ñu def maternité des naa la pour population mais lu am pour jigéen parce que nous avons am ay jafe pour mën vraiment accoucher dañuy obligé dem des caisse. avec maternité déjà personnel soignant, bi mais li qui ont xëy na donc am naa yaakaar vraiment solo trop trop trop population Ousmane Bay, je suis le directeur administratif et financier de, la société Dangote Siman. Donc euh, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre de la maternité de Pouts qui entre dans le cadre de la RSE de la société Dangote Cement. Parce que tout simplement ce matin aussi on était à, on était à Nyahip, n'est-ce pas, pour poser la première pierre, nest pas, de la construction du CM. Et l'après-midi, au niveau de pour la maternité. Et aussi, comment on en est arrivé à aujourd'hui, c'est parce qu'on avait mis en place un cadre de concertation avec les différentes communes et les villages qui sont impactés par l'usine pour voir effectivement quels sont leurs besoins, quelles sont leurs priorités n'est-ce pas, pouvoir les accompagner. C'est dans ce cadre qu'ils ont expliqué au niveau de Pout qu'ils avaient besoin d'une maternité. Même s'il y avait un poste de santé qui était, qui était sur place, aussi, il fallait qu'on les accompagne. C'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui. On avait fait déjà au niveau de, l'usine la cérémonie de lancement. Et aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en place cet édifice-là qui va aider toutes les femmes de Pout, et pas seulement Pout, les villages qui, et, la commune, n'est-ce pas, qui sont impactés par les unes, de pouvoir venir ici au niveau de la maternité pour accoucher en toute tranquillité. Et aussi, euh, on a un deuxième projet avec les femmes de Pout, parce que qui connaît Pout, n'est-ce pas, on est les femmes qui vendent les mangues sur la route nationale. Ok, on va les aider, n'est-ce pas, dans le cadre d'une formation, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer les fruits, n'est-ce pas, qui sont vendus. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fruits qui pourrissent parce que tout simplement on ne sait pas comment on peut les transformer. Et aussi on va mettre aussi des cantines témoins au niveau de la route nationale pour pouvoir vendre ces, fruits-là qui sont transformés. Ok donc euh, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, n'est-ce pas C'est la pose de la première pierre de cette maternité de Pousse. Le montant tourne autour de 30 millions n'est-ce pas, pour la maternité. Et aussi, ça n'a rien à voir avec le budget qui a été alloué, n'est-ce pas, pour former les femmes dans la transformation des légumes, des fruits et des légumes.